la ngeen jëf mbokki Sénégal mbokki bitim réew asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakato yéen ñi koy suivre lamb actualité lamb te di ko suivre ci télévision bu mag bi nga xam ne moo di Bawal TV jeudi le 8 décembre ci atum 2022 ñu xëy ñëw ak yéen ci journal sunu lamb fekkati fay affiche am solo Garga Mbossé Lagros Moussa Ndoye trois champions freinés dans leur envoi journal sunu lamb xëy ñu li ni mel waaye sur le écurie Rock Énergie et 2002 journal lamb xëy di ñu xamante day objectif difficulté la rencontre waaye ba tey journal sunu lamb xëy yaatal ci boobu la écrit ak ña fa jot a jaar Modou Lo ba ci ki nga xam ne nii moom moo di Khadim Gadiaga ak coach Pape Ndoye journal xëy ki nga xam ne nii moom moo di Demba Dia waaye ba tey journal ñu xamal ne soq bu ndaw Talfa ak ki nga xam ne nii moom moo di Mbeng Mboor Savara Boy Sine ak ki a xam ne nii moom moo di R5 super ndaje daañu ko amal tey vendredi soir maanaam àjjuma ci ngoon daañu amal li nga xam ne nii moom moom am ndaje mu yaato yaato waaye ba tey coach Socé entraîneur adjoint à Fass la xam le moom moo di caatu montagne sera vainqueur de aboy journal sunu lamb xëy firnde ñu lu mel waaye wala mu faram-fàccee ñu lu mel ba tey R5 ki nga xam ne ni moom moo di Bour Sine moom la journal sunu lamb xëy fësal ci xëtam mu yaato yaato journal sunu lamb xëy di ñu xamal ne sos Moussa Ndoye dans la tëya waaye ba tey journal sunu lamb xëy di ñu xamal ne moom moo Baye Fall ma ngay préparé jëm ci le 17 décembre ci atum 2022 diggante soq xam ne nii moom moo di Talfa waaye ki nga xam ne nii waat na bay jëm ci bisam mooy ki nga xam ne nii moom moo di jamaïcain retour de jamaïcain ki nga xam ne ni moom moo di dimanche arène nationale diggante Sambala ak ki nga xam ne nii moom mooy adversaire ba tey journal suñu lamb xëy di ñoo xamal ne moom Eumeu Sène moomee day teew foofee nga xam ne ni moom moo di coopan presse Sambala booy siini R5 un choc de choc maanaam choc la boo xam ne daal ci biir choc yi la booy Kébémer retrouver les sourires waaye ba tey journal suñu lamb xëy di ñoo xamal ne day moom abooy moomee journal suñu lamb xëy na ñëw ci moom ci ay kàddu kàddu yi yaato yaatu Tafa Gueye croix en catu montagne waaye ba tey ki nga xam ne nii moom moo di Clémenceau di a li nga xam ne nii moom moo di baptême bu muy ngénte doomam a bi ñu jëm bu ñu demee fi xam ne nii moom ca jalgati lam ka ñu fekk mooy ki xam ne nii moom moo di Boy Niang 2 doomi dégool xam ne daal moom moo di daan Balla Gaye jaral na ma daal rey sama bopp ci ay waaye journal sunu bu xëy di ñu xamal ne colonel Samba Tall décédé di ko suivre ci télévision bu mag bi nga xam ne moo di Bawal TV du ne kenn bu ma topp waaye ku jooy da pour de Thiès xombal bamba altu nangal mag seew kabak laaja kër daama kër saer jàllndul ba daaru xafoor siyaare Fuuta Gëlëb ñëpp actualité lamb ak TV sekk naanaan la troisième catégorie en ces couloirs restez chez vous je vous donne rendez-vous samedi inchallah